axusubillah min asheytaan irrajim <clears throat> bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin uh, rabbi shrah li sadri wa li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddi lisaani nawit janaani safa amaani wa zid baraayi mbokk yi ñuy topp ci internet ba rawatina seen bi mi Serigne Djily TV ak bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen di leen ñaanal jàmm ak tawféex ak saadatul daarayni di ko sàkk ci yéen mbokk yi tey dañ leen indil tomb bu am solo boo xam ne nit ñi bari na luñ koy defante wala sax koy def sa morom te doo ko yëg wala nga tay ko ba noppi di ko def xeeb ko nag fekk boobu lu rëy la mbokk yi loolu lan la mooy ab tooñ ab tooñ français di ko wax injustice lan mooy injustice lan mooy ak tooñ jikko ju ñaaw la bàkkaar bu rëy la lor gu metti la melo la woo xam ne melowu ñàkk solo la melowu bon la day yàq diine day yàq aw yiw day ñoddi ak mbugal day waral ak mbañante ci diggante yi ak sorante day jur ak soxorante day waral ak dogu mbokk ak dogu xarit ak dogu àndandoo day yàq sax dundub doomu aadama muy injustice ni ko way ba way waykat ba waxoon nag ama wallahi inna zulma lu'mun wa ma zaala almusiu huwa zulumu ila diyaani yowma ddiini namdi wa inda allahi tajtamicu alxusuumu sataclamu ya daluumu iza iltaqayna gadan inda alilahi man almal'uumu kon mbokk yi ak tooñ natiir la ci doomu aadama man nga ne dafa ci luñ ko mooñaaleel ndax borom subhaanahu wa taala wax na ci alxuraan ne wa xamalaha al insaanu innahu kaana zaluman jahula kon loolu mooy cosaanug doomu aadama muy ak tooñ ak réer ba dara nga xam ne suñ borom dimbali na ko ba laabal ko def ci moom ak gëm yàlla ak rag yàlla ak xam-xam ak gindiku ak jub ak maanu ba mën a moytu loolu moo tax ki ñuy wax almutanabbi wax ne wa zulmu min chiyami nufuusi fa in tajid za iffatin fala illatun la yazlamu mbokk yi ak tooñ lan mooy ak tooñ mooy jéggi dayo fa nga waroon na yem nga jéggi fo jàll wala nga tel wala nga teg dara foo xam ne du palaasam loolu nag buñ koy wax kon mbir yu baree bari mën na caa dugg ci biir ak melo yu bari boo demee ci injustice boo demee ci amala ni ngay jëflanteeg nit ñi yow ci sa jëmmi bopp moo tax am ñu ko xaaj ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi zulmul abdi nafsahu jàmm bi tooñ gi muy tooñ boppam te mooy bokkaale yàlla ak leneen nga xam ne loolu yàlla du ko jéggale ak jàmm bi tooñ gi boppam ci mooy yàlla ak jàmm bi tooñ gi muy tooñ boppam ak digganteem ak mbindeef yi ay moroomam nga xam ne képp koo xam ne bokkaale nga ak yàlla ak leneen yow tooñoo kudul sa bopp kudul sa bopp ndax yàlla kat màgg na màgg goo xam ne fab leneen wala dara ak lum mën a doon ag lum rëy ci sa kanam nga koy dendaleeg moom loolu ak toñ ko rëy la ci sa te ci sa bopp lay lay dellu kon tooñ gi ngay tooñ sa diggante ak nit ñi moom it lu yaatu la képp koo xam ne xañ nga ko àqam ak loolu ak tooñ la wala teg nga ko loo warta teg wala nga wax ko ko loo warta wax moo xam ci wax la wala ci jëf ak tooña googu moo xam lu tuuti la moo xam lu rëy la ci say moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi ab jullit dëgg mooy koo xam ne jullit ñi mucc nañ ci làmmiñam wala ci loxoom te loolu mooy làmmiñ ci waxam loxoom ci jëfam bokk na ci làmminam muy jëw ak fen ak tuumaal nit wala saago ko wala xas ko ni bare lool ci suñ jamono bi suñ jamono bi ci tiktok yi ci youtube bi ci xas nit di ko sosal ak bañ nit ngir aw askanam wala xeeb ko wala di ko yëjji wala di ko tuumaal lum defut wala di siiwal ak mbonam wala di xaw yi suturaam wala di feeñal ay secret yooyu yëpp ak tooñ la goo xam ne nit ñaa koy defante te bàyyiwuñ ko xel te dañoo yaakaar na lu yomb lu woyof la fekk boobu lu rëy la fa suñ borom bu fekkee tooñ goo xam ne tooñu jëf la muy dóor ko wala ray ko nangu alalam wala sàcc ko wala war ko wala ger ko wala lekk alalam wala njaaloo wala góor jigéen wala di ko déglu wala di di ko yëddu yooyu yëpp bokk na ci tooñ yi nga xam ne tooñ gu rëy la lu mat a moytu la te nit ñi bàyyiwuñ fa xel kon yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel la rawatina tuumaal nit ki lum defut nga xam ne bàkkaar boobu mën naa yëngal aras tuumaal nit ki lu deful moo xam ci justice bi moo xam ci jëflante ngay jëflante nit ñi la moo xam ñu woola ngir nga seede nit ki nga waxte li ngay wax wóor na dara du ci dëgg mbokk yi loolu lu ngi noonu bàkkar boobu kenn xamul fan nit di jëm ak moom alxuraan de wax na ne wa atadna li zalimin azaban alima waajal nañ tooñkat yi mbugal mu métte métti borom subhaanahu wa taala waxaan ne wala taxsibanna allaha gaafilan amma yafalu zaalimuun innama yuaqiruhum li yowmin tashxashu fihi labsaar muhtiina muqniina muqnii ruusihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa mbokk ak tooñ suñ borom ci boppam bi nga xam ne moom bind jaam yi nee na moom du ko def te araamal na ko suñ diggante araamal na ko suñ diggante kon lu mat a bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa yetta ngi nii yàlla du delloo mukk seen ñaan as-saa'imu hattaa yaftur maanaam aji woor li feeg miy dog waxtu wu ñaanee borom subhaanahu nag taala ko ak al imaamul aadil kilifa gu jub maanaam imam bu jub kilifa gu bokk na ci mooy kilifa gu jub rek kilifa nag buñ koy wax mooy képp koo xam ne jiite nga mbooloo moo xam xalifala la moo xam président de la république la moo xam juge la ba ki nga xam ne dafa yilif sax chef de quartier dugg na ci biir wa daawatu almazlum yarfau llahu fawqa algamaam ak ñaanu ki xam ne borom bi subhanahu wa taala te ko yëkkati kaw niir yi wa yaftax laha abwaabu sama yàlla ubbi ay bunta bunti asamaan yi wa yaxuulu rabbu wa izzati wa jalaali la ansurannaka walaw baada in borom bi subhanahu wa taala naa man yàlla ci sama màgg danaa la dimbali ak lum yeex-yeex wala lum gaaw-gaaw moo tax mbokk yi bari nga nga gis ku yàqule bari nga gis ku tabax fanweeri at mu toj ci wenn waxtu te loolu dara waralu ko lu dul ak tooñ bari nga bari bari waane nga gis ku yor lu nu lu mu yàqule ci benn saa te dara waralu ko lu dul tooñ te tooñkat bokk na ci ak tooñ muy xeem nit xeem nit ki bari na ci ñu yàqale xeem nit ki mooy waral ak tooñ ndax nit ki ñaare bu fekkee xam nga ne kii moo la doole wala moo la ëpp pexe ñaare danga ko ragal a tooñ waaye ñaare li ci ëpp ki ngay tooñ moom da ngay jàpp ne yow yaa ko man yaa ko ëpp man-man yaa ëpp alal ba tax nga xeeb ko xeebal googu nag mooy jur ak tooñ waaw xeeb nit wan ko ko moom it bokk na ci lu gën a gaaw alak doomu aadama ci ak yàqule lu gaaw a gaaw te xeeb nit mooy nga yëg ci sa bopp ne jëmmu jiikat tollawut ak man ak dayo loolu waxtu woo ko gisee ci nit rek xaman ne ak xeebal ndigg la tollawut ak man ak dayo te loolu ak rëy képp ko indi mooy cosaan bi te li ëpp ci nit ñi dañ koy def muy borom daraja yi borom alal yi borom xam-xam yi borom martaba yi yaakaar ne ki nga gis xeeb ko tollawut ak yow dayoo loolu képp koo ko def rek xaman ne xem nga ko ak ci anam bu mën a bàyyi moo xam ci sant la moo xam ci askan la moo xam ila dafa am benn waay boo xam ne dafa mas gis suñeel mu yéemu lool ci suñeel bi na waaw borom bi subhaanahu wa taala lan la jublu ci mbind gi bind suñeel bii man daal jaaxal na ma du bind bu rafet du xet gu neex amu ci benn yàlla daat koy nattu mu am ay góom yaram mu fees dell ak ay góom fu dem dafa faju ñooñu duñ ko mën a faj maanaa mu sonn lool wër ay ati at mënta wér ba benn bis mu dajak benn waay jàmbat ko ko mu ne ko demal indi ma suñeel mu indil ko suñel mu lakk ray suñel bi lakk ko jox ko mu jëfandikoo ko góom yi daal di wér xoolal noonu suñel bi mu daan bañ ak xeeb fekk boobu moo yor xoolal kooku maanaam xaywaan maanaam aw rab la xeeb tarab woowaa koy saafara rawatina ngay xeeb sa moroom doomu aadama ba di ko ko wan xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala mën naa def ci moom lu ne lu ne mën nga xam nit koo xam ne bu ko neexoon nga faatu tey wala bu ko neexoon li nga yóot lépp nga ñàkk ko tey dafa am ku ma masa nettali na loolu moo ko fekkee comme ñuy def baara ñinde ñuy yanu ay bagage ak yooyu xeet yi demoon naa ko wàccee dafa mas am borom alal bu ko liggéeyloo bu ko liggéeyloo ba noppi mu koy fontoo comme ni patron yi faral di def rek di ko fontoo di ko jànni yéex koo fay lool waa ji dem ba mer ne ko nag ah mënuma jal de waaye mën naa tasaare mënuma jal waaye mën naa tasaare kooku lam ko wax dégg ko bi mu wëlbati ko dem ab diir lañ ca teg waa ji lim yoroon ci alal lépp lépp lépp ñàkk ko ba dema dem ba bu lekkee dañ ko may xoolal lool rek liggéey na taxawal na ab société ñaar fukki at ñaar fukki at ab junni yàqal ko ko ab junni yàqal ko ko te lan moo xeeb nit xeeb doom moroom doomu aadama ndax ñu bari dañuy réere ni boroom xam-xam daal da ngay dem fekk fa mbooloo mu ko topp wala nitu yàlla daal moom mbooloo ko war a topp wala déedéet ndax xam-xam yi dafa bari am na ñoo xam ne mën nañoo fal am na ñoo xam ne ak fol rek lañ man am na ñoo xam ne xeex rek lañ man am ñoo xam ne faj rek lañ man kazalika bari te am na ñoo xam ne yàlla da leen a xamal kenn du ko xam ci ñoom te yooyu ñoo ëpp ci nit ñi moo tax nit ko gis rek nga jox ko wàcc waayam ci doomu aadama gi ko yàlla bind am solo li wolof di wax rek mooy dëgg tooñ du gàllaaj bari na ñoo xam ne aw ñaar téeméer moo leen moo xañ seen moo leen yàqal seeni milliards wala ab junni moo tax ñu yàq ñu yàqule ay milliards am junni wala gis nit rek xeeb ko wala gis nit rek tooñ ko te tegoo ko fenn lu dul ci sa daraja wala ci sa alal wala ci sa martaba wala ci sa askan yonent yàlla nuux alayhi salaam bu ko yàlla diggalee mu def defar defal gaal ga aw nitam ci seenu mën a tooñ dañ daan dem ca gaal ga di kabine ku masaana bëgg a kabine rek da ngay dem ci gaal ga kabine ko ngir tooñ ko ngir sabote ko yàlla teg leen feebar bopp ci ñoom kenn mun koo faj ma am bis ma am bis kenn dem ca gaal ga di kabine rek far daanu ci biir kabine ya bi mu ci biir kabi kabine ya fi kabine yi ci yaram wa rek daal di wér mu ñëw wax ko nit ña ne leen ah, man kat wér naa te kabine ya nekk ca gaalug noox ga ca laa wére ñu dema dema dem ba fépp kabine gisutoo ko fa ñoo ko raxas bam set wécc ci seenu yaram nga xam ne ñaare ak tooñ boo koy def da lay natt natt boo xam ne balaa yàgg mu dal la ndax yàlla ci boppam moo mënta sopparte ak tooñ ndax da ko araamal ci boppam araamal ko suñ diggante te ak tooñ li tax mu doy waar am na xeeti gàllaaj yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo am na ñoo xam ne fii ne boo leen tooñee boo rek mën ngaa daal di faatu fi saase te loolu benn ñett koy waral benn gàllaaj da koy def nitu yàlla da koy def baatin da koy def am na ñoo xam ne boo saaga ñu alag la fi saasi moo xam gàllaaj guñ takk la moo xam batin bu leen yàlla jox la moo xam ba buñ am la ci yàlla am na ci ñoo xam ne gàllaaj yu ñuy takk ku leen dóor am na ci ñoo xam ne fii ne kenn du leen joxoñ am na kenn du leen joxoñ gàllaaj yooyu am na yoo xam ne yii danga koy takk wala yii yoo xam ne danga koy sangoo nga xam ne ku la laal rek daat koy gis fi saasi kon yooyu moo tax tooñ du gàllaaj ñaare li ci ëpp ci nit ñi ci yàqu la rek li ci ëpp ci ak tooñ ak tooñ na bàyyi te mooy xeeb doomu aadama kon kon daal ñaan lu am solo la ñaan lu am solo la musulaay lu am solo la waaye nag li koy téye mooy maandu te bañ a tooñ ndax kan yii mën a wax yépp bañ émission bu gudd rek waaye bu ci nekk mënoon naa laa jox xissa boo xam ne lii maa ko fekke wala lii maa ko dund wala lii ko ko fekke dund ko wax ma ko ci xeeti gàllaaj yi ma la wax yoo xam ne boo ko takkee ku la merloo gis ko ku la merloo faatu ku la wala ñu dem ci ab sëriñ liggéey la te nit ki waxtu boo ko tooñee rek xamal ne am na buntu ci yow waaw boo tooñul nag ñu tëb dal sa kaw nga am gàllaaj am ñaan ñu tëb dal sa kaw loolu du yomb waaye waxtu woo tooñee nit xamal ne sàqi nga ak bunt bu mën a tàbbi ci moo tax wolof di wax ne tooñ du gàllaaj xeeb nit nag lu mat a moytu la te mooy waral tooñ nik ki bokk na ci li koy sabab xeebaate te ñaare koo xeeb rek dootoo ko teg fenn mooy waral nga koy tooñ ak di ko nin te doo ko yëg fekk booba loola ngay def mën nga cee jëlee yàquleeg adduna mën nga cee jëlee sax yàquleeg àllaaxira kon loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la moo tax sëñ Musaa Ka di wax ne kuy xeebi nit xamagul kuy rëylu nit rëyagul ku rëy du rëylu ku am xam-xam du xeebi kemam maa nga xam ne dafay saf waaju xam te xamul mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ji ci ak tooñ yal nañ ci yàlla musal yal nañu yàlla musal ci ñuy tooñ ak ku ñuy tooñ musal ñu ci musal ci suñu njaboot ndax yaar yëpp a metti benn neexu ci yow koy def lu rëy mën nga ko ci jëlee ci nattu àdduna nattu àllaaxira kiñ koy defit neexut ci moom ndax day yëg ci boppam ak doyadil day yëg ci boppam ak suufe day yëg ci boppam ak tumuranke day yëg ci boppam ak ñàkk kon lu metti la benn neexu ci moo tax injustice lu mat a xeex la lu mat a bàyyi xel la te ku ci nekk fa nga toll rek mën nga fa xeex injustice muy ak tooñ bokk na ci liy ñoŋal suñu àddina bokk na liy ñoŋal suñu àllaaxira bokk na ci liy ñoŋal suñ diine bokk na ci liy ñoŋal suñ dëkk bokk na ci sax liy ñoŋal suñu économie ndax lépp lu ko yàq rek ci tooñ la lalo kon yan nañu yàlla dimbali jubal ñu gindi ñu teg ñu ci siraatal mustaqim ba mboolem luy ak tooñ ñu man ko moytu zahiran ak baatinan muy suñ diggante ak borom bi subhanahu wa ak suñ jëmm yi ak suñ diggante ak ñi ñuy jëflanteel ñu ngi jéglu bu baax ñu ngi jégluwaat baax ci kàddu yi li ci dëng ñoo xam ne ñàkk xam-xam la li ci jub nag ñu sant ko borom bi subhanahu wa taala di leen jox dig daje ci beneen jamono incha allah wasalaamualeykum wa rahmatulah